salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen a ngi ànd ak seen mbokk Baye Ali Diop ci suñu jotaay bi ñuy tuddee xamsu daqaayiq fi siirati nabii sallallahu alayhi wa cinq minutes par jour yi nga xam ne dañ koy ànd ak yéen ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey jii nag suñ jotaayub ñaareel ñu fas yéenee ànd ak yéen ci benn tomb te mooy juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jamono makka ci bisub altine fukki fanak ñaar ci weeru gàmm rabiul awal ci at ma ñuy tuddee aamul fiil loolu nag dafay tombeek 22 avril 571 ci juddug sayduna isa bi mu jamono nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafay indaale ak set gu mag sëkk dara luy baaxoo taq ci yaramu koo xam ne day dog di ñëw taqul ci yaramam bëtam yi ñu ngi ko tusngal te li góor baaxoo def di dugg gu góor moom sang bi sallallahu alayhi wa sallama daf koo juddwaale bam ne cëpp lam njëkk def mooy dafa tudd borom bi subhanahu wa xeeñ parfum bu neex wax nañ ne bërëb ba mu ganee woon jamono ba saa di taxaw dafay xeeñ parfum waaye itam dafay indaale leer gu yéeme goo xam ne ña nekkoon Màkka dañ daan seen palais ca sor ci misaal nga nekk fii ci Touba ba noppi di seen palais ba nga xam ne ma ngi ca Ndakaaru te palais Kisra ba nga xam ne ay xërëm xeet yu demee noonu ñoo fa nekkoon yàlla daf ko xar ci leerug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba seen lal ga sax da doon yëngatu di xar te itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gënee jamono ci la jinne yi noppee am accès ca kaw asamaan ndax dañ daan dem ba ci juróom-ñaareelu asamaan